déggee scandale ak ñun ni ñu ko déggee du benn moom dafa am dégg-déggam mun nañ ko ko nangul mais ñun su suñu dégg-dégg gouvernement bi bëri ay scandale président la république ba mu toogee rek dàq premier président de la cour suprême dàqin boo xam ne yoon da koo tere loolu scandale la parce que premier président de la boo koy dàq da nga koy njëkk woo wax ak moom loolu la yoon wax président woowu ko dàq ko noonu loolu loolu loolu la beneen scandale président de la république moom moo bind ci assemblée nationale nañ def déclaration de euh, premier ministre def déclaration de patrimoine le 13 mais le 12 nous le président de la république a fait naxee mbaay un scandale Bon, le président de la république day damm ay yàq ñun loolu dañ ko jàppee scandale président calculé loolu ñun dañ ko jàppee scandale fi lañ ko gis muy calculer 18% huit pour cent bu ñuy bu ñuy ci 100000 francs président mënu ko calculer président daanu ci ba am zéro mais lolou scandale la président gis nañ ko fi mu sol ay tuba yuy buubu yoo xam ne ñun ci wàllum protocole ak diplomatie ñun pour loolu scandale la pour ñun loolu scandale la président war yéreem dafa war a net sur mesure loolu ñun dañ ko jàppee scandale premier ministre moom si boppam mais def na fi yoo xam ñun dañ ko jàppee scandale te scandale la si état si république si réew premier ministre moom si boppam gis nañ ko fi mu damm ay yàq jël Écosse dugal ko biir Scandinavie loolu mais loolu scandale la Écosse bokkul euh, bokkul Scandinavie premier ministre gis nañ ko fi mu wax ay déclinaison quinquennaux décennaux mais lolu scandale la ba orthographe grammaire bi bu ko damé nonu yàq mais lolu scandale la scandale bu mag bon euh, soxna si di may mun a mais lim fi wax mais scandale raw ko néna na Abbas Sall su fekkee dafa laale ci cinq milliards yoy ñuy ñuy ñuy lam, laame moo tay ministre bu waxee non? loolu du scandale mais premier ministre loolu loolu loolu ngandim scandale la ministre bi amul sañ-sañu waxee noonu état amul maa tey république amul maa tey réew amul maa tey scandale la def ndaw si tey euh, ministre Cheikh Tidiane Dièye mais mais ay scandale la def scandale dem ba Touba ni nawet bii di suñu nawet loolu waxu scandale la loolu du wax bu responsable loolu se c'est scandaleux euh, contrat bi mu dakkal suñu digganteeg ak waa Pawa mais loolu nga dem scandale la tey ñu ngi nii suñu digganteeg saoudien ñagas te ba léegi ministre bi génnewul contrat bi wax fan la euh, contrat bi amee lu ñuul lu si ne wala lu baaxul lu si ne ba léegi def ko loolu scandale la te saoudien ñi ngi nii tey euh, suñu digganteek ñoom neexatul mu yàqal ñu. yàqal ñu central euh, ndox mi nga xam ne dañ ko waroon lijjanti mu gën a baax ci réew mi loolu scandale euh, moom moo nangu moom Cheikh Tidiane Dièye ne dafa laale si contrat wu euh, ONAS bi yoon daf ko ko tere moom amul amul amul sañ-sañu dugg si direction nationale boo xam ne lu mel ni ONAS office national bu am autonomie de gestion ministre bi yonda ko koo tere mu dugg si yëfu contrat am dugg na si lolu scandale Cheikh jang jiñ ko ne yow ministre bi da nga def da nga da nga def lu xóor lolu scandale la Cheikh jang jiñ ko ne ren Touba dina inondé mbënd dana fa am te yow ministre bi yow yaay responsable mais <laughs> premier ministre lolu bu scandale lan moy scandale lolu ay scandale la te mën nañ mën nañ lima yeneen scandale yoo xam ni euh, am na fi si gouvernement euh, premier ministre nag dañ koy ñaan bu bàyyi xel benn mbir gouvernement bu amul scandale amul si àdduna bi gouvernement yëpp dañuy am ay scandale parce que ay nit rek ñoo ñoo nekk si gouvernement bi dañuy wàcc yoon dañuy def lu ñu warul def dañuy wax lu ñu warul wax dañuy dem fu ñu warul dem moom ay scandale bés bu ne àdduna bi yëpp ay ministre ba si Kenya keroog. seen vice président sax lañ jël ne dañ koy dañuy tekki ndombal tànkam ndax ay scandalu ay xaalis gis nga bés bu Amérique buy réew mi gën a mag si àdduna day am scandale si gouvernement yi ba gis nga ay président bi ñu koy toppee di ko woo si tribunal ak yooyu mais mais scandale ak mais nga ni sa gouvernement amul benn scandale loolu nu mu tudd mooy bañ dëgg ne yow jant bi nee na fànq nga ni yow gisuloo ko soo waa kër da leen di boot dañ leen di roganti defuñu waxuñu ñu nag loolu franchement duñ ko nangu parce que nit su dul nangu ay manqué manqué du leen mën a saafara te nag gouvernement bi sunu gouvernement la du gouvernement premier ministre de premier ministre moom ko de da koo jiite ñoom ñu war ñoo liggéeyal léegi nag bu ñu defee ay scandale dañ koy wax dañ si war a indi saafara premier ministre su fekk xam nga lii nag mooy yow fasoo si yéene indi benn saafara mais loolu yow la engagé sa diggante digganteeg histoire sa diggante digganteeg sa bàmmeel sa diggante digganteeg sa borom sa digganteeg nit ñi lay jugé fi leeg vingt ans cinquante ans cent ans loolu yow la mais ñun dañ jàpp ne scandale la te dañ ko war a joyante te nag nga dem ba foofu si di pour meeting politique di fa wax ay waxu dossier euh, justice loolu rek si boppam scandale